defaloon ko daaw fekkee déwén ñu ngi sant yàlla bu baax spécial tabaski ci 28 Pro TV ngeen di ci ànd ak seen mbokk seen xarit Siri Diakhaté ñu fas yéene seeti ay kilifa waxtaan ak ñoom ñoom ñi nga xam ne mënuñoo am temps seeti askan wi saafonteeg ñoom 28 Pro fekk si leen ba ci seen kër ubbil leen euh, li nga xam ne moom mooy page bu yaatu def ak ñoom benn waxtaan bu yaatu dénkaane yi waaye waxtaan ci li nga xam ne moom mooy tolluwaayu réew mi buñ ko waxee muy actualité. nationale mbokk yi 28 Pro TV danañu seet ci mbokk yépp muy kilifa diina kilifa aada chef de service yi yëngut ci wàllu politique ñoom ñëpp danañ sol seen dàll danañ sol suñu dàll seeti leen waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom baalonte ak ci li nga xam ne moom mooy Aïdil Kabir bi 28 Pro TV toute l'actualité en image bu leen ko kenn nettali ngir bépp renseignement wala ngeen bëgg cee participer woo leen ñu ci 77 600 635 13 63 77 635 13 63 mbokk yi antenne baa ngi noonu plateau baa ngi noonu bu ko kenn wuute.